système bi du la arrangé du la neex mais réew mi ni muy tëddee moo tax yow parti politique ba na muy wéyee noonu rek ngay obligé di doxale tant que politisation yi dindiwuñu ko en tout cas concernant les élections législatives ci ay processus bi li am assemblée nationale on aura beau avoir vingt législatures mhm. même chose la ñuy reconduire mhm. man foofu sax dama lay appuyer man xam nga lu ma gëm ci assemblée bii di mhm. waruñ jox majorité absolue pa euh, nu mu tudd maanaam parti au pouvoir. mais oui ah, man man moom xam nga man man man assemblée laay gis. internet yi dañ koy wax souvent. naan bëgg nañu am ajaratu mami. assemblée boo xam ne à l'assemblée nationale. dañ fay gis très bonne idée. dañ fay gis des mami ñoom Ababacar Mboub. waaw am na ay figures yu nekk ci bi yoo xam ne. duñu duñu dañu war a nekk ay député c'est vrai. duñu benn. mais c'est des gens responsables bu dëgg jotee dañ koy wax bu fu amee dëgg dañ koy wax su Benno amee dëgg dañ koy wax man figure yooyu laa bëgg gis biir assemblée maanaam assemblée bu dëgër boo xam ne dépendul si tutelle Ousmane Sonko dépendul si tutelle président Diomaye mhm. rusul janoog Ousmane Sonko na ko lii leeral ko rusul janoog ministre diw wala délai na ko yow lii leeral ko. neel comme Guy Marius Sagna rek. comme Guy Marius Sagna ba tey ñi fa nekk mu ngi leen wax ñu leeral. Mhm. Mhm. te ñu bari jàpp nañu ne. moom nekkoon na député avant mais bu ñu amoon bu ñu amoon bu bu ministre yi ñëwee ku mel ni oh. gii. kon réew mi développé ministre yi ñëwee. nga xool ko ca marathon budgétaire bi. du changer taxawaay. Mhm. donc man assemblée bu mel noonu laa gëm man. mooy buy contrôler l'action du gouvernement mais pas jël majorité absolue jox ko. Euh, nu mu tudd mouvance présidentielle loolu d'accord parce que mhm. député bi bu amee couleur ministre am bi bu ñëwee couleur boobu la koy xoolee yow yaay diw yow la ministre diw maa ngi xaar appelé ci pël non man ma ne fi man donc dama lay redevable dama gëm ni pouvoir bi même bu ñu tasee assemblée pouvoir warul am majorité absolue biir assemblée man loolu laa d'accord d'accord mooy assemble boo xam ne day contrer l'action du gouvernement di leen saytu di def ay commission d'enquête parlementaire di di saytu bu baax a baax a baax milliards yi leen votel fan la jëm man loolu laa gëm. d'accord même bu ñu tasee bi warul leen jox ñoom majorité absolue boobu. d'accord mm. euh, ñu digressé tuuti sànq euh, Ngoné laal na ko euh, Cheikh Ousmane laal na ko saa yu ñu tuddee rek instabilité mu xaw am ci réew mi <laughs> turu Amadou Ba day jóg. dafay fekk si Waly Diouf Bodian bi ñu koy installé li mu waxoon ne on peut pas diriger ce pays avec des opposants milliardaires. mais parce que Amadou Ba en fait beaucoup le considèrent comme un. comme un serpent tu sais un serpent il se faufile de manière silencieuse mais quand il te mord yàqu nga. am na ko mami jaan quoi. jaan waaw. Amadou Ba man <laughs> sincèrement su ma koy xool loolu loolu la may xaw a nduru mhm. parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit xam nga Amadou Ba waxam bariwul. et de tout le temps musul bari wax. c'est-à-dire Amadou même bi muy nekk candidat Benno Bokk Yaakaar sa bariwul woon wax. benn ba euh, monsieur wax dem ci benn plateau euh, à la TFM euh, daanaka cëla la nit ñi gisee ay faayam yu bari. Ah, mais oui parce que Amadou Ba c'est quelqu'un qui agit bokku en silence. Mhm. ku ne xam ne ne Amadou Ba ni muy procéder c'est euh, quelqu'un boo xamante ne dafay am ay pions ak i nitam. Mhm. ñooñu ñooy fonctionner ñooy communiquer à sa place moom il ne communique pas. Mm ne le fait pas beaucoup. <laughs> donc moo tax ma ne la comme Diane la mel en fait il se faufile il fait moom mu ngi avancé mais tu ne le vois pas avancer ba keroog morsure bi di la dal ngay door a comprendre ne yow ndekete Diane moo nekkoon ci sa wet. Mhm. Amadou Ba noonu la mel moo tax lu ñuy am rek lu ñuy wax rek turam daf ciy feeñ. et benn moment bi président Sall di waaj a wàcc. Mhm. ñu bëri dañoo njortoon ne. surtout euh, Macky Sall yi Amadou Ba génnu ci parce que Macky dafa dem ba finalement il n'avait même plus confiance en la personne de Amadou Ba mu tànn noonu nit ñi doon ko wax. Mhm. parce que il te l'a boo xamante ne bu fekkee dafa am ay bras ci biir administration bi am ay bras partout am ñu koy communiquer mhm. am ay chroniqueur am. Mhm. am ah. staff de communication. ak ay yow Amadou bu ko teg como de. loolu yëpp Amadou ko doon def. ah bu ko teg como nag. ak ah, ko sori. du como nag. mën na como de ndaanaan la ci li muy def. ku froid la ci li muy da ngay dëggal kàddu yu Bassirou Diomaye euh, wax ba mu jàkkaarloo ak euh, Moustapha Diop ne moom bu ñu tegoon Macky teg Amadou bu jël makki moo ko gënal mu jël Amadou. waa parce que Macky Sall euh, xa da ngay xam fu mu jëm. Mm-hmm. Macky sàll mënul nëbbu. moom mënul tricher. Macky mënul nëbbu du tout Macky bu meree da ngay xam ne dafa mer. Mm-hmm. quand il a pas envie de sourire il sourit pas dire buy wax ay bal wax na ay bal quoi mais au moins tu sens kii une personne boo xamante ne amul tricherie. donc mhm. defoon amul filtre. voilà ci dialogue ba ak ku ñëwul. non amul filtre moom. Ah, moom day wane ay sant. moom faiblesse am loolu la. munul nëbbu lu nekk ci moom. te loolu faiblesse la. Mhm. <laughs> loolu faiblesse bu mag la. parce que nit dëgg-dëgg kenn warul la mën a. cerné. Mhm. mais mais Macky amul filtre Amadou nag doo xam lu ko neex doo xam lu ko naqari. Mhm. c'est ça le problème de Amadou Ba et surtout Amadou Ba ne communique pas Amadou Ba ne communique pas. Ah, parce qu'il a beaucoup de failles. non parce qu'il a des communicateurs. ah am na ñu koy waxal ah oui am na ñu mu yoon ah oui. Ah. ah yow tamit nag Amadou Ba bu amul woon ku ñu koy waxal kon. bu boobaa moom li mu li mu jot a wax fan la koy jële Amadou Ba léppam par procuration la. Mm. gis nga kay ma wax la ñi nga xamante ne sax moom ak ñoo ma bokk parti te ci Amadou Ba la ñu far ñoom sax duñ communiqué. muy <laughs> yónnee ah duñ communiqué. ndax looloo tax ba mu jógee France ak léegi kenn déggu ko euh, nit ñi ñu ngi doon wax ni dina récupérer postam ba mu amoon à l'Assemblée nit ñi naan yenn ci ay député mun na am ñu démissionné bu ñu ko teggee ci bopp APR boobaak léegi ñu ngi naan day taxawal partem du ko taxawal duñ ko sax dégg mu wax. Amadou Ba parce que Amadou kan ma ko tàmm miin mu wax c'est ne pas connaître Amadou Ba en fait. Mhm. qui pense que Amadou Ba voilà il se couche sur son oreiller il se réveille il boit son café il fait sa promenade yaa ngi sa bopp de. <laughs> de ah, Amadou ne procède pas comme ça ah mu ngi euh, mbaxal dimanche mën na ko continuer par contre parce que foofu moyen de stratégie la justement pour dérouler lu mu bëgg a defar. Mhm. da yaakaar ne même lu mbalax lu mbaxal il ah c'est pas gratuit ah non non non le mbaxal n'est pas aussi <laughs> on parle de d'hommes politiques yoo xamante ne il réfléchit stratégie à chaque fois mm -hmm. Amadou Ba ne communique pas Amadou Ba est quelqu'un qui agit en silence ci suuf lay liggéey ci suuf lay doxal ay stratégie wam ci ay suufu lay doxal ay mbiram bu la dara bett nga jékki-jékki ah undercover <laughs> bu la dara bett nga jékki-jékki rek dégg ñu ne Amadou Ba lii dina la choqué mais pour pourquoi son nom est toujours cité c'est parce qu'en fait il est craint te nit ku mel noonu doo ko ñeme est-ce que xam nga loolu man ki bëgg na a ñeme mooy nit ki nga xam ne c'est-à-dire bu ma li ma bëgg wax dina ma wax mm-hmm. mais nit ki nga xam ne man du ma xam danga nga verte da jaune da nga rouge xaw ma fu ma lay mm-hmm. situé nit boobu man dama lay ragal une personne difficile à cerner waaw li taasukat ma man dama lay ragal dama lay ragal du ma lay ñeme <laughs> waaw parce que Amadou Ba loolu mooy mhm. problème am. Mhm. ñeneen ñi ci des nag ndeysaan. Mhm. bëgg nañu am existence politique mais xam nga lu leen xaw a manqué. caay caay liñ koy bëgg mottalikoo nag. mooy maanaam ab euh, arrogance. ci arrogance boobu jigul ñëpp. am na ñoo xamante ne forme yenn forme d' arrogance yi charme la ci ñoom. dafa naturel nit ñi dañ koy sax bëgg. ba dañu koy jàppee dëggu. wala ñu xoolee ko benn figure de résistance guerrier mais am na ñoo xam ne booy guerrier guerrier lu yàmbar ngay gën a saf te da soof nit ñi na bu politique du ñëpp ko mën de dafa am ñoo xam ne dañoo war a politique am ñu warutu politique Amadou Ba comprend que moom mënul taxaw di guerrier guerrier lu du caractère am donc kooku buy dox ci suuf lay dox doxinu bandi lay dox moom xeexu mayin lay xeex xeexul xeexul loxo amul boobu jot kenn du ko gàjj kenn du ko xosi te tànkam du pënd mais dans sa tête il utilise bien son cerveau mhm. et il travaille très bien et il sait avec qui s'entourer ci li mu bëgg dem kan la ciy gunge mhm. moo tax nañu tey bu baax ci ay mbiri Amadou d'accord daal loolu gën a daal sama jërëjëf euh, Adjaratou euh, Mamy euh, ci digression boobu la ñuy demee ci beneen sujet bi <laughs> daal di dugg ndax ci Amadou la nekk nous faisons a à craindre mhm. démb dégg nañu Alioune Sall ne moom bokkatul APR benn